kon bu ñu jógee foofu noonu tamit mais wax naa leen émission bi tey lépp fii lay leere dakarnet.com léegi question bu ñu koy laajaat moo nekk ni euh, dañoo gis ne gars yi ne dan laa dan laa fekk appartement rangu nga màndi màndi gu métti te loolu dafa jot tey nga leeral ko. loolu dafa war a leer parce que man dama am famille dama am yaay am papa. non man Aliou Niakh jaaxal na ko. man Aliou lu dugg rek. man man fekk ma appartement rangu ma màndi bu ñu ne woon fekk nañ ko appartement rangu sax dama naan garaawul quoi jàmm. mais mandi bi ñu ci teg moo métti waaye ah, ku dul tux cigarette naa ne sàngara. mais da am relation ak rangu wala. mais mais rangu su suñu rangu la borom baax la. ba xam ne na am relation quoi. waaw dañu am relation sama gaayar la maa ko bëggal sama bopp. Hmm. waaw mais kon est nekk tamit loolu lañu gis moo moo tax ñu nekk loolu parce que ñoom ñu dafa mën a xam ne yow rangu ah, mamaam sa xarit la comprendre nga. est ce que nekk moom ci loolu lañ sukkandiku ñu jàpp ne ne xaar nañ ko jéem nañ ko gis fii nii muy mànd ci appartement loolu nga mujjee dégg samedi bi passé Ndeye Ndiaye Banaya lañ ma giñ <laughs> kon xam nga ne tey bu ñu waxee bu ñu jugee si Ndeye Ndiaye Banaya dem si Rangou te mhm. dañ maa fekk appartement Rangou ma màndi mhm. hmm? appartement Rangou màndi yóbbuwuma fa est ce xam lan moo fa yóbboon exactement non loolu hmm. loolu yàgg na xool dañ ciy doog jot loolu ay xaalis moo la fay dugal n'est-ce pas. Mhm. da doon def soirée privée. waaw waaw loolu yàgg na. mais mandi gi moo ma métti musuma mandi pour dul tux cigarette may mandé. yow daan nga dem soirée moom. non benn yoon boobu la. Hmm. waaw te mandi woo quoi. dañ ko gaañ du ma tux cigarette sax bay mandi. Hmm. c'est que nag. Mhm. waaw am na ñoo xam ne bu ñu gisee benn bouteille bu nekk sa wet rek ñeneen di naan rek yow mun nañ la considérer comme naankat. mais mais mais mais alliance loolu loolu loolu tee na xel de. waaw xam lu tax mu tee Hmm. man dama toog mais ku ne ak fi nga toog ñi toog suma côté ñoom ñooy màndi d'accord barki Serigne Saliou musuma sax sax cigarette bay màndi mais soirée privée la xaalis moo la fay dugal. yow da ngaa dagg paas ay kilifa ñu fa woon mais na ay kilifa dama na la laaj ba xam da nga ñëw dagg paas dugg ci soirée dagg paas dugg ci soirée bi. te paas bi boo xamul première karo la de. lu garaaw laa lay tegal. paas bi. paas bi <laughs> waaw. ticket bu lay dugal foofu première karo la. Hmm. maanaam si gàttal. foo ko yóbbu soxna. d' accord waaw. foo ñu may la soxna. Hmm. parce que paas bi foofu noonu bojo bojo du fa dugg mun naa ne ñu fa dugg man rek maa si amul tur te su ma waxoon ñu fa dugg loxo day dar gémmiñ mais dañ ne privé non nañ ko gas suur rek parce que man dama nekk nit koo xam ne damay dund showbiz parce que damay xool damay xool damay jàng. Mhm. parce que ëllëg dara bañ la jaaxal ci àdduna nga dagg foofu trois cent mille wala deux cent cinquante mille. Mhm. nga dugg fa. Mhm. nekkul da fa dugg pour ut mais dafa da ngay dugg pour am loo jàng. comme nee nga ah, foofu noonu paas bi ku fa dugg rek mooy mën na ci may jabar. ñooy yaakaar yow est-ce yow euh, est ko da nga benn avance rek jël xaalis xam na xëpp parce que xaalis boo xam ne boo ko jëlee kat yi ak bu mun nañ cee may nit loolu non du question avance sax man lam may ma xaalis man lam may ma xaalis parce que dañ may yónnee oto ba Europe ma jaay ko maa ngi ciy ah, nuyu yow à part à part lamb ngi dox samay business xam nga maa ngi ciy nuyu suma grand njaga euro di ko ñaanal ménageur bu mag bi yàlla defal ko jàmm bu baax mhm. nga fii Sénégal ñaata ponkal nga fi dégg micro looy liggéey luñ lay wax business. business. Hmm? Mm-hmm. waaw kon business. dafay business quoi waaw noonu la demee nag fii Sénégal la. Mm-hmm. waaw noo ko lijjantee rek na rafet rek quoi na bañ a ñaaw. Mm-hmm. mais noo ko lijjantee rek job la. fii Sénégal dóor moo fi ëpp xaalis man xam nga ay waxi dóor sax waratu waratuma ko wax <laughs> mais Sénégal dóor moo fi ëpp xaalis billaay. daal da nga jàpp ne Sénégal fi daal ñuy dóor quoi. fii non dóor moo fi ëpp xaalis nañ yem foofu rek. mais mais mais mais expliquer parce que yaa boo ko doon war nga ko expliquer ne lii ak lii. non Sénégal xoola xoola ñaari dof yooyu. Pawlish Mbaye ak ak ak ak doomu dof boobu. di la hmm. waaw xam naa waaw. ñoom ay waxi dof rek la ñuy wax te pour rendre ñoom xaalis eh. ku nekk yaa ngi dawal oto bu rafet mais ñoom ñëpp seen bopp yu baaxul Lirou Diane moo gën a dof ci mbër yi. mais eh. xoolal pourtant dañ saa day def yëf sol sol lu rafet. Hmm. mais boo koy dékk micro muy wax waxu dof. mais mais mais mais mais yéen. Alioune xanaa ah, nekk moom moom ñu ne day def nii gars yi quoi pourquoi nga nga neew Liiru Jaan dof la te mu nekk mbër di bëre comme yow. kon yow comprendre dara dof ngay dëkk micro mu laan la bu ma waxaat lii ah lii ba ma ko waxaatee di nga xam ah, dof loolu dof moo kooku bopp bi baaxul non nañu waxante dëgg rek. Pawlish eh. Mbaye bopp bi baaxul Ouzin Keita góor bu toll ne moom nga jàpp xeesal sa bopp bi tent ko kooku dof la man dof laa ko jàppee Ouzin Keita noonu mu mel noonu daa daan woon ci teen bi mu nekkee xale lu garaa laa tegal xam naa ko de. xel mee dem barki sëñ Bamba eh. moom lu garaaw laa lay tegal bis boo ko gisee boo ko laajee ba xam bi nga nekkee xale da nga mus a daanu si teen dina la leeral li nga jaax lu mu daan si teen moo tax mu xaw kay da ba ma koy xam soirée sénégalais ndéggéey hmm. moom mooy woy première partie hmm. ba ma koy xam yàgg na du léegi mais moom instant yii nii moog Pawlish ñooy yëngal les réseaux sociaux ñoom déggoo moom li ma lay wax ay dof ay dof ngay dajale ñoom <laughs> man biisu bu ma koy seeraan jour boobu sax dama mujjee ma ne biisu man nan la mun a waxee ak ñii ah mais ñoo xam ne seen bopp baaxul Lirou Diane barki démb lañ ko def émission directe. <laughs> muy nuyoo. waaw naan ama neex bu yeewoo damay nuyu ñii bu ñu yeewoo du may nuyu te ñi muy waxal ñoom ñoo bokk géejawaay. Hmm. muy Abdou Diouf. mais loolu est ce nekkul problème est ce nekkul problème am na ku nekk ak sa problème am ma kii wala. mais problème la. Hmm. bokk ngeen plateau. Hmm. mais bul wax ay duñ ma nuyu comme yow doo leen nuyu nuyool sa nuyoo te noppi mais dof weesuwul plateau direct nga naan. ama neex bu yeewoo damay nuyu ñii bu ñu yeewoo duñ ma nuyu boobu nit dina ko def moom day sol yëre yu nitee hmm? toog war a wax waxu nit mais day def day wax waxu dof kon ñoo dof jàppee lii bopp bi baaxul dóori ko wulli ko jàpp am neex yaa xam dof yaa ngi si biir nit ñi di hmm. Sénégal moo bëri ay dof nag. Hmm. laa ilaaha illallaah. ak kan nga ñu mën a citer à part Lirou Diane. Lirou dof la. ak dox bu mag bi nag mooy mooy mooy sawaay mooy mooy Ouzin Keita Pawlish Mbaye ñëw na ko danduma rang ñoom rang moom moom ñëpp xam nañ ne moom moom moom ñëpp xam nañ ne moom dof la ndax kayitu dof la am. que rang kayitu dof la yor. moo rang kayitu moo tax du yàgg samet buy dem di génnaat. Sénégal mais mais mais laal na koo xam ne tey jii bu la déggee tey jii nii yéen ñaar di ngeen boo defoon naan di ngeen rang de. moo yor rang. yow rang daa ñemee raag ak man. rang nga xam ne une deux trois day dagg moom moom moom ñëpp ko xamee day saa nga koy attaqué. loolu mooy dof bi ba gis nga képp kuy génn si ay site. Hmm. wala ngay def ay vidéo di saaga. Hmm. da nga fàtte ne da nga bàyyi sa yaay kër ga. boo joxee sa yaay cër. Hmm. am cër si doomu aadama doo saaga kenn ndey ci souvent direct. ngay dagg lu ñaaw ëllëg say doom dañu war a ñëw sa papa moo fi doon saaga loolu rek woy bu ñaaw la. Ah, ah, alliance bala ko gis xam ne moom ah, ci làmb la nekk ci làmb la gëm. xam nga bëre na ci ay combat ñu ne laaj yow euh, sa sa palmarès sa combat ñaari combat nga bëre ak ak ñaata défaite nga am. am naa 14 combats am naa 6 défaites. aussi tamit dañoo gis foo toog lenn mooy nga ne yow boo amee loolu gën a gënal mooy nga duma Papa booy Djiné. kooku xoola fii ba tilaa yow mi diini bu ma demoon ba bàyyi làmb nekk di ini giréel si digg joob <laughs> ñu woo ma ne ma sa combat papa ba ma bàyyi joob bi ñëw duma ko delluwaat maa ko mun fuuf maa ko gën a kapaabu <laughs> maa ko gën a nekk waga moom du waga day mm. waga waga barki sëñ Bamba booy amuñu fidde mm. làmb ji neex na trop micro yi tiim la ngay wax lii kërëb kërëb mais bu arbitre soufflé mm-hmm. ñaar yéenay nekk si géew bi lu metti laa lay teg amul combat bu yomb 4 kaw wala am géejawaay la ñu am maa daan saa Thiès maa ko dóor mu daanu dund maa ko dóor mu daanu saa Kajoor maa ko dóor mu daanu benn sarax laa fa muy macca kon da nga jàpp ne tey boo jàppee poids boo jine mu nga ko def ñu gars yi dóor mu daanu ñoom maa leen yoreel trois ñoom benn rek lañ ma yoreel wiiri wiiri jariñ ndaare barki sëñ Bamba hmm. bébé bismi la war a bëreel hmm. man duma ma jël combat damay toog xaar hmm. moom la ngay xaar daan ko ba pare ma xool nu muy def. mais mais mais pourquoi nga choisir ne bébé Bismi moo xee daan. te moo gën a moo dàq moo lépp moo ko lépp si lépp. moo ko mën daal loolu si lépp laa la mu def si làmb booy bopp dangay def. Hmm. non bébé mais yow sa problème ak papa Boy Djiné lan la. seen relation damay gis foo toog xam ma mooy loolu quoi may lan la dafa am loo ko jàppal wala wala lan la quoi. bis bu ñu bëree ba pare ma wax lan la. mais tànk bëriwuñ kenn du xam lan la. te mënoo ñu koo wax fii. déedéet tànk bëriwuñ man ak moom ba taxali ko. Mhm. ku ne xam boppam kenn du xam lan la. am na lu dox suñu diggante nag. règlement de compte la am lu dox suñu diggante man ak moom man xam naa moom xam na yàlla xam na. Mhm. waaw mais jabaram suma xarit la parce que ba ma koy xam xaw ma papa. foofu laa bëggoon sax ñu yegg si fi doguma la mais dañoo gisoon sa relation euh, comme yaa ngi mhm. comme ni nga ko waxee rek. avant papa yàgg na waaw léegi ñu jékki-jékki gis ba benn moment yàgg ndéegéey xam nga génération xaw a def ñu yaakaar lool lu waral lool non ndéegéey man ak moom jotewuñ dara c'est que mhm. sénégalais moo mun yoox man dama génn si benn site mhm. ma ne mbaajo comme su ma jigéen la su ma xarit la mhm. dafa am jëkkër maa ngi koy ñaanal mais tamit xam nga mais nit dafa wax waxam noo ko jàppee rek noonu la waxee. Mhm. mais dañ ne man damay gaaruwaale ndéggee ana góor a gaaruwaale. Mhm. ndéggee su ma ko bëggee wax dara dama ko koy wax mais amul lu ma ko wax parce que ku baax la. Mhm. sama jigéen la sama xarit la yàgg nañoo déggante téléphone yàgg nañoo gisante yàgg nañoo fekkante. mais relation bi mi ngi mi ngi dem ba léegi wala dafa am. daal jëkkër day sëy. non maa xam naa dafa am jëkkër day sëy mais comme relation en tant que càmmin ak kii. dematul xam nga lu tax dematul. parce que moom daa nekk ci buum di sëy Mm-hmm. te ki muy séyal sama adversaire la. Mm-hmm. kon waaw jàmm ju ma ko yéenewoon nag moom laa ko yéene ba léegi quoi am na courage diggante. Mm-hmm. ok loolu ko dégg yaakaar naa ne loolu leer na ñi fi ñuy ñëwaat mooy que ni euh, dañoo dégg ne Paka euh, Jos ko Saab dalay fay xaalis pour ngay saaga. <laughs> loolu ba mu ci jotee sax dafay yàgg. parce que Paco Josaat Paco Joson ba ma koy xam Bamba moo tax ma xam ko Bamba Itali mu nekk suma waay nekk taalibe mais taalibe Serigne Saliou ku baax dina saagaloo kenn Paco Joson boo saagaa sax day wax astafurlaa. mais pourquoi ku dir rek ne alliance alliance dafa ba maanaam ñu koy di ko olof dafa weex donc wala lépp lu ñu ne moom lu waral lool. noonu la demee nag barki sëñ Bamba alliance lu mu laal rek. la <laughs> Paco Joson sama xarit la sama waay la. Mhm. mais koo xam ne du dina la saagaloo. ñu ne Paco Jason daf ma jox pour ma saaga. Mhm. <laughs> man su may saaga damay saagaal sama bopp mais man dañ ma yar du ma kuy saaga. Mhm. mais mm. Paco Jason dafa ma jox xaalis bu ma saaga. mais naa jàpp comme moment bi fi jógee nii est ce que yow sax toog di saaga. non du ma saagaal kenn ku bëgg a saaga da ngay saagaal sa bopp. Mhm. mais ci Paco boobu fa amul leer. parce que gisoon nañ ma may dem si gàllayam gisoon nañ ma may waxtaan ak moom. à cause wax saagaal ma diw. wala kaay ma jox la xaalis nga saagaal ma dëgg la nag yàgg na yëkkati alalam may ma. Mhm. mais musuma wax saagaal ma diw wala kaay ma jox la nga saagaal ma diw. Mhm. Baay Faal la borom baax la. Mhm. taalibe Serigne Saliou la kooku du saagalu kenn. waaw c'est que Sénégal yenn saa dañuy fàtte. da def lu baax ba nekk ci tolof tolof ñu fàtte la. ana Cheikh Gadiaga doo ko dégg ci dara parce comme tawat mu ci moom. Mhm. doo dégg kenn fàttali ko pourtant mu ngi fi doon def lu baax mais Sénégal yenn saa yi dañuy fàtte jëf yu baax. Mhm. kon kon bi ñu bëggee dégg-dégg daal Paka Diassou Thiam sa xarit la. Mhm. waaw yow daal noonu nga ko jàppee sama xarit la sama xarit la musuma saagaloo mais saagaloo la musuma jox xaalis ne ma saagal kenn pour mu leer waaw musuma jox xaalis ne ma saagaal kenn waaw maa ngi nuyu nag biisu pata 2 maa ngi koy bëggee bu baax sama jigéen bi